الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد بك جلتي yi تي na ci عليه الصلاة والسلام تي alayhi بمدان wasalaam بجملة يالله bi yar nit ñi di leen ci teete ci sirat al mustaqim te yàlla waxoon ko ne udu ila sabili rabbika bil hikma mu daan woote ci kaw hikma muy xereñ bi sages jëfandikoo gi nga xam ne yonent bi alayhi salaam daan na ko jëfandikoo ay méthode ay yoon yu wuute ci nim daan xamalee xeetam lu baax ba noppi ñaax leen ci lu baax loolu ñu góorgóorlu taxaw ci ba noppi itam ci beneen wàll ba mu leen di xamal lu safaanoog lu baax ba noppi di leen wan yoon yi nga xam ne buñ ci jaaree mucc ci mu leen daan xamal ñaar yépp lu baax ñaax leen ci wan leen yoon wi ñuy jaar ba taxaw ci waaye lu safaan ak lu baax wan leen yoon wi ñuy jaar ba sori ko loolu moo tax mu gën a matale ñépp jàngale salawaatullahi wa alayhi daan na jëfandikoo di nettali xew-xew yoo xam ni jàll na lu wees ci yeneen xeet ci nit loo xam ni daloon na leen wala ñenn si ñoom jaar nañ ci mu ci daan tiire ay njàngale di ci daan jële ay jàngale di ci daan tiire ay enseignement di ko jàngal xeetam loolu ak mat rek lay def ci xeetu lislaam ndax chance bi ñu yàlla defal mooy ñun ñu naxnul axiruuna al awwaluuna yowma alqiyaama ñun ñoo mujjee ñëw ci xeet yi waaye yowma alqiyaama ñooy raw ci xeet yi ñooy njëkk a dugg aljanna bu suñu boroom yàlla ñu ko yàlla defal ñoo mujjee ñëw kon dañuy jariñu ci lu bari ci loo xamante ni xeet yi fi jàlloon jànkoonte ne woon nañ ak moom ci loo xam ne suñu diine daf ñu koy xamal ñu koy jàngee ci ñoom ba ku ca juum ci ñoom sa njuumte ñu mën a xam fan la nekkoon ba moytandiku ko ku ca góorgóorlu woon ci baax ci ci lu baax ci ñoom ñun itam ñu góorgóorlu ba weesu la nga defoon moo tax suñu borom kon xamal ñu ne loolu mu ñuy nettali ci seen i nettaliwu ko rek pour histoire mais daf koy nettali ngir njàng bu ci nekk ñu mën koo jariñoo mu bokk ci lu mu doon nettali moom yonent bi alayhi salatu wasalam benn bés dafa toog ak saxaaba yi mu ne leen ñett ñoo wax ci mahad muy nekk ci ak ndaw nekk liir tëdd ci lal boo xam ne lalub liir la ba noppi wax ñett ñoo ko def mooy ñett ñoo tollu foofu nekkul ne ba ñuy wax dañoo nekk ci almahd mooy dañoo tëdd ca lal ba di wax waaye ñett ñoo wax ci jamono joo xam ni jamono juñ leen di tëral ci lalub liir la loolu la ci namm mooy kon âge bi la ci namm âge bi mooy nekk liir bu tooy xepp ba noppi wax ñett ñoo ñooñu mu ne Isa ibn Maryam nga xam ne yàlla nettali nañu mbiram di ko ndeyam wasine jël ko delloog moom ca dëkk ba ñu ne ko foo jëlee lii xamewuñ la woon lii xaaruñu woon ci yow lii mu joxoñ xale bi xale bi wax ne leen inni abdullahi aataani alkitaaba wa jaalani nabiyan waaye tamit keneen ki nga xamante ni wax na ko moom dañuy njëkkee kay ki donte moom da koo mujjal ndax fiñ bëgg a taxaw mooy ki nekk ci diggante bi mooy benn xale boo xam ne ndeyam da koo boot yor ko di ko nàmpal ñuy dox ba mu yàgg ñu romb benn waay boo xamante ni ma ngay jaagar-jaagar yi yor fasam nekk benn cavalier ci anam boo xam ne bu taaru la ndeyam ne ay sama sama boroom sama doom de bëggoon naa mu mel ne waa ji doom ji daal di bàyyi ween bi ne yow yàlla bul ma def mukk may mel ne kii daal di continuer waat nàmpam ñuy dox ba mu yàgg romb as ngone su jigéen soo xam ne nit ñaa ngi koy dóor naan ko dafa njaaloo dafa sàcc mu naan leen xasbi allahu wa ni'mal wakil li ngeen may wax ko mu ne yow sama borom sama doom bul ko def mu mel ne kii doom ji bàyyiwaat wen bi ne yow yàlla nag ma def ma mel ne moom ndey ji daldi na ko ah man de maa ngi bëgg a jaaxle ci sa mbir yow musuloo wax tey may wax nga may tontu lu xew romb nañ nit ma ñaan nga mel ne moom nga ne déedéet ñu romb nit ma ñaan ne bul mel ne moom nga ne bëgg ngaa mel ne moom mu ne ndaxte ku njëkk ki kooku ku yëg boppam la kuy rëy rëylu la ci kaw jaami yàlla yi kon bëggumaa mel ne moom yàlla jox na ko kàttan jox na ko alal muy rëy rëy lu yëkkati ko ci kaw suuf ñaanuma yàlla mel ne moom donte la ngay séen ci mbiram ci taar lu rafet la waaye jëmul ci lu baax ñaareel bi ñu romb mooy jigéen bi ñu romb ñu koy dóor di ko tuumaal lañ koy waxal dara amu ci bu dëgg dañ kaa tuumaal kon boo ne yàlla bu ma mel ne moom man bëgg naa mel ne moom ndax lañ koy tuumaal sori na ko ñetteel bi mooy koo xam ne dafa tuddoon juréy ji juréy ji ab yàlla la bu mag bu nekkoon ci banu Israil daal di génn dëkk ba dem ba ca gannaaw dëkk ba ci àll ba mu tabax fa as këram su ndaw ab néegam bu ndaw boo xam ne ban la ko tabaxee da ko tabaxoon defal ko mu mel ne ay escalier yoo xam ne day yéeg ci kaw bu yéegee ci kaw fa lay nekk di jaamu yàlla sori nit ñi sori dëkk bi bàyyi seen lépp muy lu ñu doon tuddee ar rahbana muy di làbbewu loolu lislaam daf koo tere lislaam daf koo dàq ndax l'islam diine la joo xam ne dafa bëgg ñu dund en société soo góorgóorloo ba baax mbaax gi nga des ak moom ci société bi fexe ba baaxal mais bul jël sax mbaax dem berok moom ci àll ba bàyyi société bi mu yàq kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah loolu moom mooy suñu taxawaay ñun jullit yi mooy baaxal ci sa bopp waaye góorgóorlul ba mbaax gi jóge ci yow dem ci société bi kon naam jafe na ngay dund ci société bi gàllankoor yi jaxu lépp mi ngi fi waaye nag bul daw waaye tamit même bu la lislaam ne bul daw itam lii mu def mën nga koo def te doo génn ak sa jëmm ci biir société bi ndax dangay fexe ba di moytandiku nit ñi ñu lay lor ci sa diine di la gàllankoor ci sa diine sa kéemtalaay kàttan kon beru gi du doon beru génn dëkk bi waaye beru bi day nekk beru fréquentation ci milieu yi nga xamante ni jullit bi bu bëggee ak mbaax nekk ci moom war na góorgóorlu ba yenn milieu yi kenn du ko fa gis yenn xeetu nit ñi du leen fréquenté ndax nit ki fi muy fréquenté dafay jeexital ci moom kon kii noonu la defoon mbaax googu nekk ci moom ndeyam bu ko mësaana soxla day dem ba fi ba jub fa mu nekk mu yuuxu ko woo ko ba mu dégg ko mu woo ko soxla benn bis yaayam ji ko dafa génn yuuxu ko ne ko yaa ba mu dégg ko mu koy woo ne ko kaay dama laa soxla fekk Jurayj mi ngi mu ngi julli nekk ci ay jaamu yàlla mu ne ah sama julli ak sama ndey sama ndey mi ngi may woo maa ngi ci julli ndax damay bàyyi julli gi dem wuy ji ko wala damay continuer julli xolam nekk ci mu continuer julli mu continuer di julli ndey taxaw xaar ñëwul mu dem ñaareelu fan bi mu ñëwaat woowaat ko fekkoon ko muy mu continuer ci julli ñetteeli fan bi noonu xol bi nag mel ne dafa yëngatu xolu ndeyam xolu yaayam mu daal ne moo ngi ñaan yàlla bu ko yàlla faat mukk ngi fekk wanu ko jigéen ñi nga xam ni ay jigéen ñu kàccoor lañ jigéen ñi nga xamante ni baaxul da nga ne da ngay daw fitna yi nit ñi rek daw yàqutey société bi moo la tax a daw làqatu ji dem toog fee loolu boo ko defoon yem ca lu baax la waaye nekk ci sa loolu ba tax man mii sa ndey jur la talatoo ma su ma la woowee sa dooma wuyu mu ñaanal ko ne ko yàlla na la yàlla fitnaal wan la jigéen ñooñu nga xamante ni ci caaxaan ak kàccoor lañu ñu nekk loolu ñu ciy déggee ne ndey ak xam lu foor la waajur ak xam lu foor la nit ki lu mu baax baax baax baax baax baax loolu du ko tax a génn war gi mu war ci moom mu def njëkk jëmale ko ci waajuram dafa bokk sax ci mbaaxu nit muy def njekk di jëmale ci waajuram wàcce boppam ci ñoom ak lu mu yëkkatiku yëkkatiku ak lu mu am teraanga ci àdduna ak lu mu mën a am waru ko won ay waajuram kon loolu lu ñuy jànge fii la jure ju mi ku baax la woon ku mënoon jaamu yàlla la waaye ñaan bi ko ndeyam ñaanal da koo dal te yonent bi nee na bu ko ñaanaloon lu raw loolu sax mu dal li lay won rek foor gi nga xam ne ñaanu waajur foor na ko bu jëmee ci doom moo tax yonent bi alayhi salaam ne kenn ci yéen bu mu ñaan lu bon bi ko jëmale ci njabootam ndax mën na koo ñaan mu tombeeg yàlla nangu ko loolu dal njabootam léeg-léeg gis koo xam ne day mer rek daal di yëkkati ak ñaan xëpp ko njabootam wala doomam bu ko mer loolu yàlla na la yàlla nangam loolu kenn ndax ñaanu waajur dafa for yent bi neena na ñetti ñaan a ngi yo xamni yàlla dafa dafa da nangu du ko delu ñaanu waajur bu jëm ci doomam ñaanu ku nekk ci tukki ak ñaanu ko xamni dafa wor ba di dog ñetti ñaan yo yàlla du ko delloo wala ak ñaanu ki nga xamni dañ ko tooñ ñaanu ki ñu tooñ ñaanu ki wor ba ngon moy dog ci benen hadith la ko waxee waaye ñaanu ko xamni dañ ko tooñ mu yëkëti ay loxom jëmele ko ci yàlla yàlla daf koy wax ne wa izzati wa jalali la ujibannaka walaw ba'da hin kon nga gis ne ñaan bi ko ndeyam ñaanal da koo dal ndax li ko dalee ak li muy baax baax yépp foofu tamit lañ fay déggee mooy moom ci jaamu yàlla la nekkoon nekkul woon ci mooy yàlla maanaam jaamu yàlla moo ko teree wuyu ji ndeyam malgré loolu yàlla sanctionné ko ci li mu def ku mel ne alimaamu yi dafa wax ne borom am yi dañ cee wax ne amaana seen diine ñoom nit ki mënoon naa wax ci julli ndax même l'islam ci tàmbaleem nit ki bu musaan nekk ci julli danaan wax buñ mësaan di julli ci jàkka ji boo ñëwee tardé da ngay wax ki nga dendal ne ko ban rakk lañ yem mën na la rakk sàngam nga soog a taxaw kàbbar julli ginnaaw bi la yàlla subhaanahu wa taala wax julliti ne leen wa qumu lillahi qaanitin wa xaafidu wa xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qaanitin bi mu laan digalee loolu ci la yàlla araamal wax yoo xam ne bokkul ci julli nit di ko dugal ci julli kon borom xam xamee ne nañ amaana ñoom seen diine amoon na possibilité wuyu yaayam ne ko maa ngi ñëw wala mu baral bu ko baralee daal di gaaw arrêté dem wuy ji ko waaye deful lenn ci loolu ci la waxee ne borom xam-xam yi nee nañ kon yenn ci lay jaamu yàlla yi nga xam ne du ay farata ay lay jaamu yàlla ak ay ngëneeli jëf bu safaanoog taxaw ci jëf mbaax jëmale ko sa waajur nga def mbaax jëmale ko ci moo ko gën moo tax naa ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasallam di ko yaman ne ko ñëw hijra toog ci yow di di di tàggatu ci lislaam di di di di jihaad ci yoonu yàlla mu ne ko kan nga bàyyi sa ginnaaw mu ne ko samay ñaari waajur mu ne ko jox nañ la ci loolu ndigal mu ne ko déedéet mu a ko demal nga toog def njëkk jëmale ko ci ñoom ba ñu ba ñu jox la ndigal nga ñëw bu ñu la ko joxoon nga continuer lu baax li ngay wut fii nga dem wuti ci ko foofu ci ñoom kon nga gis ne ñaari waajur seen ak foor la lool ni ko yàlla nangooy ñaan bi nag mooy benn bis dañoo toog ca banu Israël ca dëkk ba di waxtaan ci mbaaxam ay waajooju ak a baax comme ni nit ñi di def rek nit kuy góor góorlu ci lu baax ëllëgee ko ñu jéem a xool na mu def ba baax ñu jéem a mel noona déedéet day mel ne moom ni mu mel dafa nekk lu impossible ci ñoom ñu mel ko dañuy toog rek naan kii ni mu baaxee ni mu liyee ni mu laa yaa ngi toog di wax mbaaxam jéemal fexe nga mel ne moom wala nga raw ko waaye dañuy toog di wax rek te léeg li ñuy wax sax du tegu ci xam-xam waaye dañuy wax rek bi ñuy wax ba wax ji bari ci mbaaxam ak ni mu mel ak ni soree àdduna benn jigéen bu fa dégg leen ñuy wax jigéen bu rafet bu taaru boo xam ne kuy taxawaanu la sàmmul boppam dafa rafetoon ba ñuy coow rafetaayam dafa rafetoon ba ñuy coow rafetaayam loolu di wane ne léeg-léeg jigéen itam ni rafetaayam mën a nekkee fitna ci moom mën koo jural itam ak sànkute bari na jigéen ñoo xam ne bu rafetaay nekkee ci ñoom nit ñi jublu leen rek day daal di yàq seeni jikko jigéen ji daa boole ñaar yépp nekk jigéen joo xam ne feguwul sàmmuwul waaye tamit rafet lool taaru ne leen moom bu ñu bëggee mën naa leen fitnaal Jurayj mën na leen jéem koo provoqué mën na leen cokkaas ñu ne ko ah, demal ba xam xëy na yow nga mën ci dara jigéen ja dem fekk Jurayj ja fa muy jaamoo yàlla mu koy jéem a provoqué fu mu jaara ko fa lu ne mu ko def ngir woo ko ci boppam Jurayj ji faalew ko gestuwul sax di ko xool na ku ko gisul bi mu demee ba sonn lu mu def mu nekkaat beneen jàng bu am solo ci xissa bi mooy léeg-léeg nit ñi bu buñ la jéemee wut mënuñ laa am dañuy jaar fu la jege dañuy xool benn point bu faible ci yow point du vulnérabilité ci yow ci sa njaboot ci say xarit say fréquentation moo tax nit ki war di bàyyi xel bu baax a baax a baax ay noonam bunt yi nga xam ne fa lañ ko mën a jaaree mu koy moytandiku di ko jéem a teggi léeg-léeg benn nit booy xamanteel rek boo xam ne si xooleen sax yenn yi mën nañ la cee jaar tuumaal la loo xam defaloo wala foo xam ne seen nañ dafa nga dem fa ñu tuumaal la daa am benn waay bu daan sàmm bu sàmmee ba diggu bëccëg nag naaj bi tàng mu ñëw ci fi juree ji di jaamoo yàlla mu toog fa juree ji bàyyi ko mu fay toog di féexlu waa ji loolu doo boo ko fa daan indi du xaritam du daraam ab sàmmkat la bu mu bàyyi mu ñëw di toog loolu dérangé ko yàqalu ko dara waa jooja la ndaw sa dem gis ko jox ko boppam kooku njaaloog moom akramakumullah ba ndaw sa jële ca ëmb daal di am doom bi mu amee doom ñëw ci gaa yi ca dëkk ba ne leen yéen a doon wax ne seen waa ji kenn mënul ci moom dara ah, doom ji de moo ko jur subhanallah doom ji moo ko jur gaa yi daal di jël seeni jaas yi ñuy jël seeni yat ñu jël seeni pel ñu tëb tëb ëllëg ñu gëstu gëstuwul ndax loolu lañ yàkkamti woon léeg-léeg bu ñu tuumaalee yenn nit ñi nit ñi dañuy mel dañ ci dañ ciy kontaan dafay mel ne loolu lañ doon xaar bu ñu la gisee ngay góorgóorlu ci lu baax yenn yu bari ci nit ñi nekk nga koy moytandiku nit ñi day mel ne dafa am en bu ñu lay enal boo xam ne dañuy yàkkamti musiba tegu sa kaw bañ ne waaw moom itam gis nga li la fi doon nekk di jaay nit ñi affaire loolu moo tax yenn mbaax yi bu ci nit kiy góorgóorlu war a xam ne li jig ñenn ñi jigu ko ndax dafay weex donc ndax nit ñi dañuy yàkkamti benn njumteem bu ndaw rek ñu exploité ko lu ne ñu waxal ko lu ne di jug daal di dem tàmbali ne ko wàccal moom xamul sax koy wax lan la wàccal fii yuuxu ko fexe ba wàcce ko mu wàcc fam nekkoon di jaamu yàlla ñu jël ko dem tey ko fële li njëkk a def mooy toj fam newoon di jaamu yàlla waa léegi moom bu njaaloo woon ba jële ca doom lu ci seen yoon bañ koy jël di toj fam doon jaamoo yàlla doyatuñ ci ñu koy dóor mu ne leen lan la li ngeen di def nii lan la ñu ne ko ndaw sii nee na yow yaa jur xale bi yaa njaaloo ko moom ba jur xale bi mu ne leen loolu la wax ñu ne ko waaw mu ne leen léegi may leen ma ma julli ñu may ko mu daal di julli dellu ci yàlla loolu tamit di nekk njàng bu am solo ci ci xissa bi mooy nit ki bu yëf yi jaxee bu coow li baree bu jafe-jafe yi bëree amoo beneen rëccuwaay amoo beneen dawuwaay bu dul yàlla yàlla rek subhaanahu wa taala moom xelam nekku fi ci di woo ndaw si naan ko kaay fii li nga wax foo ko teg ñu ne fa di coow coow la bari ku ne dugal ci salaan làmmiñ bu ko defee soo moytul sax lañu doon jéem a wet ji tuuma yi gën a tegu ci kawam xam naa ne loolu mun mënu ko cee génne kenn moo ko ci mën a génne ci li ñu ko tuumal ndax amul benn firnde benn preuve bu mën a indi pour mën a setal boppam ku dul yàlla xelam dem ci yàlla mu julli wet ak boromam diisoo ak boromam ñaan yàlla lim koy ñaan loolu ñu ciy déggee itam ne nit ku baax jàppul ne lu muy def ci loo xamante ni lu xar baax la lu daawul gis la moom moo koy defal boppam mais daf koy jële ci yàlla la ko ci yàlla la ko jële ci yàlla la sukkandiku ndax li tax mooy bi mu jullee ba noppi daf ne leen indil leen ma xale ñu indi xale bi mu jël loxo bi dóor ko ci biiru xale bi ne ko yow xale bi kuy sa baay kuy sa baay loolu nit ku wóolu yàlla rek mooy def loolu ndax bu xale bi waxul woon ah léegi lu muy wax nit ñi lu muy wax nit ñi lan bu xale bi noppi woon nit ñi dañ naan ko yow da dof xale bu mel nii nga naan ko kuy sa baay xamoon nga ni du la tontu yow da ñuy fontoo kon bu boobaa dañuy gën a mer ci moom waaye wóolu yàlla ci ne yàlla am na kàttan ci wax loo xale boobu ak lu mu nekk nekk liir moo tax mu ñëw sañ a taxaw ci kanamu ne ñu naan xale bi kuy sa baay xale bi na ko sàmm bi mooy baayam sàmm bi mooy baayam sàmmkat bi sàmm xar fii di ñëw fii di toog fii kooku moo ko jur subhanallah loolu yaqin la kóolute gu nit di am ci yàlla moo koy àggale ci niveau yu yu mel noonu waaye gis nga itam julli gi mu julli dalay wan la dafa ñaan yàlla dellu ci yàlla ngir yàlla defal ko loolu bi nit ñi gisee loolu lan la jur li mu jur mooy ñu commencé ñëw di fon loxo yaaka ñii di jàpp yére ya di di raayaka ñii di mooy li nit ñi même attitude boobu ba suñ jamono ji jàpp nañ nit ku baax daal nekk fi di fon ay loxoom ak ñëw di raayaka naan da ngay barkeelu loolu moo lay jariñ ci moom moo lu tere nga jéem a góorgóorlu mbaax jéemu ne nga ne ci lu tere nga góorgóorlu jàng ci moom lu baax lii mu nekk tàggatu ci yow itam baax ne moom lu tere nga def ko mais da koy jombale sa bopp yaakaar na yow daal sa sa digganteeg moom li fi ne mooy ñëw di fóon ak raay noonu da lañ doon def di fóon lox di fóon ak raay daal di na ko dañ dee tabaxaatal sa bërëb bi nga daan jaamoo yàlla luñ ko wax ne ko ci wurus ci or lañ la koy tabaxaatale ci or lañ la koy tabaxal ndax yow lii nga def nii moom moom moom nangam sàngam léegi nga gis foofu benn mbir bu doy waar ci nit ñi ni ñuy jugé baaxu nit pourtant Jurayj nam meloon rek la mel ba léegi dara beesu fi ñoom li bees ci ñoom mooy li ñu gis te yàlla defal ko ko te muy karaama karaama bu ko yàlla defal mooy loolu ko yàlla terale ci waxal xale bi xale bi setal ko ñoom loolu fi mu ne moo fees seen i bët ba tax ñu commencé koo bëgg a jël di xaabaabal ci mbiram te moom du ko nangu ngay gis foofu benn doxalin ci nit ñi bu doy waar boo xam ne mooy ne ñoom jàpp nañ ne balaa ñoo mën a gëm ne lii mbaax la ñu gis loo xamante ni dañ naan waxloo na garab ga doxloo na garab ga waxloo na xeer ba nangam sàngam nit ñu bari jàkkaar dañu la nit balaa ngaa mën a nangu ak mbaaxam faw mu def loolu faw mu def benn xar baax bu rëy bu la yéem nga soog a ne jàpp nag ne ku baax la te boo demee ba jàpp ne sax ku baax la ginnaaw bi nga gisee xar baax bi wala nga yëpp ko la ngay def yépp mooy nekk di xaabaabal ci ay mbiram mooy ni waaye ni gaa yi def rek naan ko kaay ñu tabaxaatal la fi nga nekkoon defal la ko waaye tamit bokk na ci liñ ciy jàngee mooy nit ñi buñ lay jéem a yëkkatee ka àggale fenn fi dina fitnaal ci sukkandiku ci sa mbaax bul ko nangu bul ko nangu ndax dañ lay yàqal li nga nekk bu nangu woon ñu tabaxal ko fa mu nekk ci wurus dinañ ko yàqal lu baree bare bari ci mbaax gi nekkoon ci moom ndax dañ koy daal di fitnaal àdduna la ñuy daal di dugal ci biir xolam mu bañ na leen déedéet delloo leen ko na mu nekkee woon suuf nekk ban delloo leen ma ko te ngeen dellu seen yitte bàyyi lii moo ko tàqaleeg nit ñi nag nekk njàng moo xamante ni jàng bu doy waar la boo ko seetloo dañ gis ni yu bari lañ ci jàngee mooy mbiru doomu aadama ak nit koo xamante ni day góorlu ci mbaax léeg-léeg gaaw a mën a tuumaal tuuma goo xamante ni duñ ko gëstu comme ni ko suñu borom subhanahu wa santaane beneen bi tamit mooy fitnay jigéen inna kaydakunna azim daanaka waaju baax du ñuy fexeel rek ci jigéen lañ koy jéem a jaaree mu nekk tamit lu jara jara jara moytu ndax léeg-léeg liñ naan yow la fa mu àgg du mën àgg ko ndax juree ji laata ñu koy tabax laata laata muy génn ci coow li fi nekk jot nañ ko fay dóor jot nañoo toj fam doon jaamoo yàlla kon lu mën a am rek loru na ci mbir ma donte yàlla seetal na ko waaye mu jot naa loru ci mbir mi loolu yépp di wane rek fitna yi jigéen beneen bi tamit mooy kam doon bàyyi muy toog ca bërëm bërëm boobu nga xam ne moom lu baax la ci jublu woon ndaka te bés bu ñuy dem ba koy fexeel ci kooku lañ koy jaaree loolu tamit ne waa ju baax du fu la neex dem du fu la neex dugg du ku la neex jaxasool ndax léeg-léeg ñu jaaree na la ci ci ci ñenn ci ñooñu loolu luñ ciy jàngee la luñ ciy déggee la mu nekk xissa boo xam ne bu doy waar la boo xam ne lu bari lañ ciy jàngee ñu ciy gisaat tamit muy feeñ bu baax a baax cëru waajur surtout ndey dañ ci gën a bàyyi xel képp koo xam ne yàlla baaxee na la nga dajeeg say waajur ñuy dund xamal ni yoonu aljanna mi ngi noonu te loolu la yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon torox na perte na koo xam ne daje na ak ñaari waajuram ñu dem ba magal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 اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم وفقنا لهداك واجعلنا مرنا في رضاك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين